Euh, yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mobilisation ak wàllum propagande moom la ñu invité tey euh, Assane Ba ñoo ngi lay nuyu. Abdou maa ngi lay fay di la gërëm ci invitation bi di nuyu mbooleem auditeur Rewmi FM ci waxtu bu baax bi pour ñu déglu émission bu am solo te ñaan yàlla suñu borom lépp lu ñu fi wax rek yàlla na dëppoo ak jàmm yàlla na dëppoo ak euh, bëgg-bëgg bi nga xamante ne am nañ ko ci réew mi ngir mu dal ngir mu am jàmm pour mu am développement. Euh, jërëjëf euh, Assane Ba yow nga bokk ci partie bii di euh, PDS fi ñuy commencé waxtaan wi nag mooy lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yi nga xam ne mën nañoo wax ne ay weer a ngi nii ñu si tudd ñaari député yoo xam ne dañoo bokk ci mouvance présidentielle kenn ki tudd bi yaay kenn ki tudd ma Mamadou sàll bi nga déggee ñu tudd leen ci wàllum trafic passeport diplomatique lan moo si njëkk a nekk sa xalaat ak sa réaction mais. première conséquence bi ma ci tiré mooy euh, que ni le gouvernement de Macky Sall c'est un de trafiquants. ah à tout point de vue. trafiquants d'abord parce que ñi nga xamit dañu fare ci Macky Sall ci parteem ak ci nguuram gis ngeen déjà les corps de contrôle de l'État inspection générale de l'État gis ngeen euh, OFNAC ak yeneen corps de contrôle yi ñu jàpp seen ay nit def leen ay rapport ñu ni ñii am na lu ñu luubal ci seen wàllu gestion. mais ba tey déggoo fenn foo xamante ni Macky Sall déféré na leen au parquet pour ñu saytu leen c'est vrai il bénéficie ci li ñu tuddee euh, la présomption d'innocence waaye nag ku ñu duut baaraam war nañu fexe xool la settanti la euh, liñ bët la ba xam ndax lañ lay tuumaal lu am loolu lu amul waaye ñoom ñëpp def leen daal di dëxiñ dëgg leen nëb nëb leen ci booram. mais est-ce que gouvernement de trafiquant est-ce que rëyut. non rëyul maa ngi ñëw beneen trafiquant bi gis nañ fi ay député ñoo xamante ni. faux faux faux billet la trafic de faux billet ñu jàpp ko ñi quelque weer ñu lëmasal affaire bi daal di koy génne tey ji nee na candidat la ci gox ba mu dëkk loolu loolu c'est extrêmement grave dara du ci dikk nag ma xamuloo ndax képp koo xam ne def nga njombee fare ci gouvernement bu Macky Sall dara du ci dikk moom kay opposant yi lay traqué te fekk defuñu dara beneen bi mooy bi nga xamante ni nag moom la ñu voté démb seen résolution boobu pour mën a entendre ñaari député yooyu nga ngay wax euh, li am solo mooy réew mi ci boppam mëntuñu dund ci ay trafic sur trafic il faut que ñu def une gestion claire une gestion saine gestion boo xamante ni Sénégal bi dafa jis boppam parce que loolu lañ doon séntu ci mag Sall séntu ñu woon ci moom bu ñëwee dafay luubal wala ay nitam di luubal wala ay farandoom di luubal te dara ci dikk loolu la loolu la réew mi sonn loolu la nit tey loolu moo tax dañ ko war a sanctionné jàpp naa ni sax incha allahu du ñu bala ñu egg deux mille vingt deux ba deux mille vingt quatre pour les la prochaine élection présidentielle réew mi ci boppam dina jël matakaayam pour enfin ñu ne ko mbalaya parce que foofu la ñu war a toll ak moom. mais lu jëm ci lii nga wax lépp ci wàllum luubal ci gouvernement bu Macky Sall pourtant yéen dañ leen ko doon tuumaal. waaw mais ñun bu ñu ko tuubalee itam kooku c'était normal parce que ku si wujj di sëlëm doo doo jàkk rafet. mais ñi nga xamante ni defoon nañ njombe ci suñu nguur président Abdoulaye Wade def leen jàpp tëj leen kaso par le canal des institutions judiciaires kaw moo di boo ngi fi ñoom bay lawaan ngi fi ak ñeneen ñeneen lool kenn mënu ko dindi bi Macky Sall nekkee ci bopp réew mi 2012 ba jonas tey est-ce que gis mu ku ñu tuumaal ci mbiram pourtant rapport yaa ngi fii fi OFNAC inspection générale d'État cour de comptes ak yeneen kuréel ak yeneen kuréel contrôle de corps d'État ñu ngi fi te chaque jour ñu déposer ay rapport ci bureau moom sa nee na rapport yaa ngi fi maa sama conc est-ce que gis ngeen loolu loolu tam yaakaar naa ni ma mën a méngale digg gestion Macky Sall ak gestion Ablaye yàlla ak yàlli la yàlla ak yàlli la li am solo mooy Macky Sall ñu ko woon pour ay ñoñam di randal alal réew mi pour ay ñooy def trafic de faux billets ay ñooñam ay député di def ay trafic de passeport diplomatique c'est ça la réalité loolu mooy dëgg ji. d'accord léegi euh, wàllum trafic passeport diplomatique bi est-ce que amu leen ci. part de responsabilité yéen waa PDS ndax nee nañ mbir mu yàgg la ci réew mi. mais bu yàggee ci réew mi itam ñun en tout cas ci sunu gestion fukki at ak ñaar ci bopp réew mi amul benn benn député wala benn ministre wala benn directeur général de société wala benn citoyen sénégalais lambda boo xamante ni jàpp nañ ci ñu ni ci nguuru mag Ablaye Wade def na trafic de faux de passeport diplomatique amul. bu amee nañ ko génnee léegi kay mbir mi kay léegi lañ ko gis léegi lañ ko wane nëbb nëppal nañu ko ba sonn mën mën mën mënatu ci dara ils étaient obligés que ñu jéem a def le semblant euh, euh, pour leeral jaarale ko assemblée nationale encore que encore que njeexantal ba sax dafa tey na xel. mais euh, ku ci mel ni Pape Diop jiite woon assemblée nationale nee na wàllum trafic passeport diplomatique lu fi yàgg la sàkku na sax. ñu yaatal li nga xam ne mooy enquête bi loolu nag lan moo ci saxalaat te si yéen la bokkoon. waa sama xalaat mooy président Pape Diop sama xarit la sama nawle la ku ma naaw la ku ma respecté la mais waxam jooju dafa am solo trop mais euh, la ma bëggoon nga def yow mooy nga invité ko fii sa émission nga posé ko question yi mu leeral xalaatam mu leeral askan wi ndax xam na Pape Diop ku intègre la nit ku set la nit ku yiw la nit ku am dayoo xam naa ni bu ko waxee rek am lu tax mu wax ko mais comme man xaw ma naka la ko dundee ak naka la ko gisee man ma man ma nit li gëntam ma doon sax sàkku daal ci yow mooy nga fexe nga invité ko fii ci sa émission bi nga wax ko mu leer loolu ci askan yëpp bu ko defee mu daal di leer. mais est-ce que Assane Ba jàppoo ne wàllum trafic passeport diplomatique ndax jàppoo ne lu yàgg la ci senegal waa man jàpp ma ni lu yàgg la ndax bu yàggoon mu génn mu feeñ jamonoy jamonoy euh, jamonoy euh, Senghor ba ci abdu Diouf ci jamonoy Abdou Diouf déggoon nañ fi trafic de de de passeport chinois loolu amoon na fi loolu. seen nattaango presse bi bind nañ ko bind nañ ko. ba tuddoon si Moustapha Niass. waaw kay bàyyi waaye loolu amoon na fi ci jamonoy nguuru Abdou Diouf mais ci nguuru Abdoulaye Wade yàlla alhamdulilah rabbil alamin kenn diggu ko ci nguuru mag Sall bi la la jebbiwaat nguuru Macky Sall bii la jebbiwaat te li ñu ko gis en tout cas te li ñu ci duut baaraam ba tuumal ci ay nit ay député à l'Assemblée nationale actuellement en fonction. mais député yooyu ñu bari dañoo jàpp ne procédure bi euh, dafay yàgg euh, par rapport ñeneen ñi nga xam ne dindi woon nañ seen malaanu kiiraay. li am solo du procédure bu yàgg wala bu bu bu bu gaaw li am solo mooy comme teg nañ ko ci yoon teg nañ ko ci procédure bi li nga xamante ni moom la règlement intérieur assemblée nationale te mu nekk une loi organique nañ ko doxal bu mu jeex takk te jàpp naa ni euh, war nañ leen auditionner fan yi mu ñu leen auditionner fan yi war nañu déposer seen rapport bu ñu déposer seen rapport bu gannaaw bi entendre waaye ñi nga xamante ni tudd nañ leen si ñaari député yooyu bu ko defee li si des plénière assemblée nationale jël jël responsabilité Euh, bu ko defee justice dali wéyal enquête mais est-ce yow xalaatoo woon ne député bi ñu leen si tuddee rek waroon nañoo mën a dem ñu déglu leen ndax police déglu leen wala gendarmerie déglu leen simple audition kese lay nekk euh, ndax tamit ñenn ñi dañoo jàpp ne mbir mi lu mu dure duré euh, tey ay sopparñi wala ay justification mën na cee am. waaw xam nga nag wax dëgg yàlla nu sommes une république tamit loolu nañ ko nangu nañ nangu ni tamit député dafa am kiiraay. dafa am kiiraay donc euh, immunité parlementaire lañu ko tuddee kiiraay googu nag moo moo ko may donte dañu koy déglu dafa am fu ñu koy jaarale maanaam euh, dafa am juge d'instruction bu war a bu war a bind ministre la justice ministre de la justice également def lettre am envoyé assemblée nationale alors assemblée nationale jot le euh, affaire boobu mu tëral ko commission yi ñu daal di liggéey comme ni ñu ko defee présentement loolu tam c'est la loi donc loi boobu itam jaadu na ñu respecté ko parce que on est en république donc lu ñu yàkkamti yàkkamti comme mbir mi teg nañ ko si yoon ñoo ngi koy saytu mbir mi commencé na ubbeeku teg nañ lal na ci yoon nañ xaarandi tuuti rek ñàkkul lumière bi euh, dina leer nañ bu ko defee Sénégal yëpp am ci euh, lu leer ci ñoom ci seen gët ak seen seen no d'accord mais est-ce que euh, li ministre des affaires ministre des affaires étrangères wax di Aïssata Tall Sall. Euh, kàddu yi mu si yëkkati gisuñ ne ñaawlu na ko euh, waaye dafa wax rek ne euh, mbir mi dafa nekk ci ci loxol yoon ndax kàddum yooyu doy na la. noo doyu ma ay Tall Sall elle a tout faut de moom point de vue ci sama xalaat elle a tout faux xam lu tax passeport diplomatique en fait ministère des affaires étrangères mu ñooy yër service yi nga xam ne ñoo koy defar donc bi affaire bi amee li ma waroon def mooy def un communiqué. leeral sénégalais yi mieux qu'on communiqué dafa waroon sax def dafa waroon porter plainte contre x pour que mboolem fonctionnaire yi nga xamante ni taqe nañ ci wala laale nañ ci sax bu enquête bi ñëwee ñu war leen war a situer les responsabilités parce que ay service am ñoom ñee defar passeport diplomatique kon bu ñu nee am na trafic de passeport diplomatique moom en tant que ministre chargé des affaires étrangères te mu yor euh, li euh, direction yi nga xam te defar passeport yi jàpp naa ne loolu waroon def mais defu ko parce que euh, xam nga day garder fromage am et puis xam nga borom réew mi moom képp ku taqee ci moom boo luubalee wala nga laal suul dañ dañ lay jéem a protéger xam na loolu moo tax rek pour sàmm poste ministère am xam na loolu tax mais waxam ay li yëwan ñaawlu naa ko trop la ma waroon def defu ko en tant que euh, responsable de la république war na porter plainte euh, contre X par rapport à ses agents qui son des faussaires donc waroon na mën a def loolu ensuite war def un communiqué wala mu jël def conférence de presse leeral askan wi ni lii jógul ci moom wala en tout cas def nañu li nga xam ne war nañu ci def en attendant que justice bi di yoonam. mais euh, Moustapha mi nga xam ne moo jiitee euh, assemblée nationale moom nee na ñoom duñ si protéger kenn moo xam ma Samba moo xam ma Demba danañu jaarale mbir mi euh, fi mu ci fi mu war a jaar te yow si sa biir yi wax damaa dégg nga ne président Macky Sall képp ku ko jege rek loo def dara du la ci fekk. waaw xam nga déjà si accusation bi ñooy def usage de faux usage de faux la ñu bind waxuñu sax trafic de passeport diplomatique ci plainte bi déjà loolu tey na xel parce que usage de de de de faux passeport bokkul ak usage de faux. Mm-hmm. trafic ak usage de faux bokkul. Mm-hmm. déjà ñoom li ñu saisir assemblée national mooy usage de faux. Mm-hmm. mais nangu ñu jël terme trafic de faux passeport diplomatique. yaa ngi loolu déjà. lënt lënt yooyu ak ak ak li ñu bëgg a xelu askanu sénégalais. Hmm. donc mën nañ ba ci dem ba ci biir ñu indi leneen extra extra ñoom ñu neen daal ñoo xam naka la ñu mbir mi te wax dëgg fa yàlla euh, sunu justice bi nañu wante dëgg elle n'est pas une justice indépendante. Hmm. ah oui la justice n'est pas indépendante waxuma ko ñoom ci seen jéem ba ko wax à travers l'UMS l'union des magistrats du Sénégal seen kuréel yépp saa yu ñu mosaan toog ci seen ay séminaire génne nañ ay communiqué wane ni ñoom. dañu leen a ngalab dañu leen a takk chaîne li ñu war a def ci yoon defuñu ko ci yoon parce que dañ dañ leen ubbil euh, ay œillères maanaam def am yoon yoo xamante ni fo leen fool foofu la ñu xool ñoom ñoo ko wax waxuma ko alors donc si les acteurs de la justice ñoom ci seen jëmmi bopp bu ñu demee boo wax ni ñoom justice bi indépendantul justice bi libreul mais y problème d'accord jërëjëf euh, assan Ba yow nga nekk euh, membre ci comité directeur bu PDS waaye tamit euh, yow lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum mobilisation ak euh, wàllum propagande ci euh, parti boobu léegi nag ñu wax ci élection locale yi nga xamante ni tey moom la ñu dëgmal yéen PDS ngeen bokkoon ci coalition Yewwi Askan Wi doon waxtaan amoon seen diggante ak Pastef ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ak PUR ñu gis ne PDS dañoo jekk-jekk génn si lan moo tax ngeen duggoon ci ak lan moo leen ci génne. waa duggoon ci sax c'est trop dire parce que dugg amagul woon li amoon mooy ñun dañu toog euh, ñu ñëw seet si ñu. ku leen seet si. Euh, kuréel yooyu nga tudd léegi euh, ñoom Ousmane Sonko. seet si na parti démocrate sénégalais ñoom Khalifa Sall seet si nañu PDS ñu def ak ñoom ay rencontre bilatérale maanaam rencontre de tête à tête entre partis. ñoom ñu ne daal dañu bëgg ci élection yi ñu jëm dañu bëgg daal ñu tabax ànd ñu tabax li ñu tuddee daal coalition électorale mbootaay boo xamante ni dañu àndandoo pour dem ci élection yi ab yéene gañe élection yi ñu waxtaan ñu ne nag dañu bëggoon ñu ñeenti pàcc yooyu muy PUR muy PASTEF muy taxawu Sénégal ak pedes ñu nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko initié maanaam ñoo koy tabax bu ñu paree ci seen waxtaan ba pare ñu soog koy yaatal ci seen ay alliés alors bi nga xamante ni loolu am na ñu dellu waxtaan ak ñoom parce que ku fi def coalition rek ci PDS nga ko gisee ñun ñoo fi jëkk taxawal ay coalition coalition yi bëri bëri bëri taxawal nañ ko bi nekkee ci opposition ba bi nekkee ci pouvoir ba coalition mille sax ak fal mille moo yóbbu Abdoulaye Wade à la à la présidence de la République kon ñun mënuñu bañ loolu bi nee ba ci biir ah sunu gaañi daal di ñëw ñu ni daal mbir mi dañ ko bëgg a yaatal dépassé ñeenti nit ñi daal euh, waa Pastef ñu ne daal dañu am ñoom it seen ay àndandoo seen ay farandoo dañu bëgg ñëpp ñëwandoo à la fois ah ñu ni leen déet loolu mënul nekk ñun aussi am nañu ay farandoo mais comme yéen da ngeen ñu jaay euh, une coalition boo xam ne ñeenti nit ñeenti pàcc bokk ñoo ko séq te wax te pareeguñu li ñuy waxtaan mënuguñu ubbeeku foofu daal lañu ñu commencé am ay wuute. ci xalaat bi ñu commencé am ay wuute ci xalaat ñu gis également ni sunu gaa ñi ñooñu dem di démarcher suñu ay alliés suñu ay alliés di leen démarcher démarcher nañu président Pape Diop démarcher nañu euh, président Mamour Diop Decroix ñun ñu yëg ko alors loolu nag nekk loo xamante ni tamit rafetlu ñu ko. te te te ñoom bi ñuy commencé dañu waxoon ne ñeent ñooñu rek. ñooy waxtaan ba déggoo ci kaw kàddu doo ko ubbi. waaw te ñoom seen jéem bopp ñoo ñëw proposé ñu loolu. ñu d'accord woon ci ak ñoom ci loolu. mais bi nga xam ne loolu am nañu jékki-jékki ñu gis ñu def seen ay communiqué ñu ne dañuy def lancement seen coalition wax bërëb ba wax waxtu wa te ñun ak yow mii ñoo ci bokk ndooyam ñun PDS ak yéen ñoo ko bokk ndooyam ñun nag lii nag dafa doy kon daal lii comme ñoom nii lañ ko gisee daal ñun mënuñu bokk ci loola ndax dañ doon waxtaan te pareeguñu ponk yi ñu doon taxawal pareeguñu li nga xamante ne war nañ ko waxtaanee ba ci biir parewuñu ñoom ñu dem déjà di doxalee noonu daal mel na ne daal bañ si soobu daal moo gën. boo ko defee nag ñu def suñu communiqué wan askan wi ni ñun kat li ñu doon sabab ak di ko jéem a tabax gis na ni mëntuñu si bokk jàmbure nañ ci loolu daal mooy indi problème bi. d'accord mais euh, Assane Ba yéen bi ñoom Ousmane Sonko ñëwee ne leen dañoo bëgg a taxawal coalition waaye ñeenti parti yi ñoom ñooy nekk initiateurs yi maanaam fonda ñoom ñooy nekk fondateurs yi. Mm-hmm. bu ngeen waxtaanee seen diggante ba pare ba juboo am si ngeen dog ko ubbi léegi ñoom bi ñu leen waxee loolu te jëfewuñ ko ci mujjantal gi ne ñoom dañuy ñoddi euh, seeni nit ba pare di seeti yéen seeni alliés lan ngeen leen wax ak ñoom lan lañ leen tontu. Euh, waxtaanewuñu ak ñoom dañu constaté désaccord gi. maanaam dañuy waxtaan dañu constaté ni mënatuñu ànd. yéen ko constaté waaw ñun ñoo ko constaté lan moo tax mun leen ànd bi ngeen ko constaté li ngeen constaté lan moo tax waxu leen leen li ngeen constaté non loolu loolu dafa xam nga xam nga xam nga séentu asman jarul buuxante lu ni fang kenn du ko jeex mhm. loolu moo tax loo xamante ni si wax nañ leen ko leeral ko ci bu baax baax ci suñu communiqué ba fii may wax yow tontuñu suñu communiqué tontuñu si lenn parce que c'était évident li tuwaa na c'était maanaam dafa dafa leeroon dafa leeru nañ. waaw mais mais xam nga tamit euh, euh, Assane su dee tey par exemple tey yéen ñoom Ousmane Sonko dañoo ñëwoon wax leen ay mbir lañ leen waxoon ngeen gis ne nañ waroon nañ ko waroon a doxee wala chart yi respecté wuñu ko da ngeen leen waroon wax ne leen yéen lii ngeen ñu waxoon ak nii ngeen di doxale bokkul bu ko defee ñoom dañ leen indil tontu. waaw mais ñun loolu lañ leen wax ci suñu communiqué justement communiqué bi ñu rendre public dañu leen wax lii ma la wax nii contenu boobu moo ne ci suñu communiqué parce que tam xam nga PDS nag itam. waaw mais euh, kenn kenn kenn du ko jàngal nag nooy doxale ak nooy waxee. waaw d'accord mais man xam nga tamit euh, li nga wax nii lu tax man euh, ànduma si mooy ñoom bi ñuy ñëw si yéen pour ngeen teg coalition du dañoo jekkoon jekk rek communiquer ko dañoo ñëwoon ak yéen waxtaan si ak yéen. ba ngeen déggoo ci kawi kàddu bu ñu demee ba charte yooyu ñoom ñu jàll ko da ngeen leen waroon a wax bu ñu leen tontoo nag ngeen ngeen doog réagir ci communiqué. Abdou Khadre xam nga ñun ay ay mag la un parti responsable. Euh, amul parti bu ñu ëpp expérience macha allah ci réew mi. ba tax na bu fekkente ne ñun dañu séq ak suñu ay nawle. ñu jékki-jékki gis li ñu séqoon ak ñoom. te ñu waroon ko doxal doxaluñ ko. te ñoom ñu xam ne doxaluñ la ñuy waxante woon ak ñoom. ñun ñu gis ne doxaluñ la wax ak ñoom. day daal di kenn ku ne da ngay daal di jël sa responsabilité. d'accord mais yéen tamit euh, est-ce que xaw leen woo xaw leen a compliqué ci ci ci ànd ànd nit est-ce que xaw leen c'est compliqué yéen waa PDS. ah ci naka. Euh, nee nañu euh, yéen euh, ci lu jëm ci wàllum élection locale yi dañ leen wax ne leen yéen communes yi nga xam ne waa ñoo fa nekk maire yooyu ñu conduire leen mais ya nga xamante ni dañoo bokkoon ci yéen te nekkutuñ fa yooyu mënuñ leen koo joxe noonu am na ñoo xam ne nee na jàpp nañu ne looloo tax ngeen jóge foofu. Abdou Khadre naa la wax benn affaire wolof dafa wax ni mbott du galgal ñay mbott du galgal ñay kenn ku nekk xam nga nii ndaka Sénégal gi ñu nekk. Parti démocratique sénégalais macha allah je touche du bois euh, est le plus grand parti du Sénégal. élection 2014 locales yi ñu génnoon en 2014 téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci collectivité territoriale lañu ñu gagné ñun ñii ñu seq tey waxtaan wi daanaka ñi ay parti yu bees la ñu bëri bokkuñu sax ci élection 2014 yi. taxawu Sénégal moo ci bokkoon te génnul Ndakaaru kon nag ñun ci biir waxtaan wi li ñu mooy fi nga xamante ni parti démocratique sénégalais moo gagné woon commune yooyu wala conseil départemental boobu kooku tête de liste ba ci parti démocratique sénégalais lay jógee. dañu jàpp ni loolu amul leen lu ko gën a logique Khalifa Sall également fi mu gagné woon ci ndakaaru dégg nga jàpp nañ ni moom it war na mën a nekk tête de liste foofu ci ay nitam ñi nga xamante ni nag bokkuñu woon ñu jéem a seet nag la ñuy agencé suñu àndandoo nag lañ koy liggéey nag lañ koy waxtaanee ci tërlin woowu lañ newoon loolu kay amul loolu kay yaakaar lu lu tegu si yoon la lu aw yoon la ndax nag nous sommes d'égale dignité comme ni koy faxee waaye nous ne sommes pas d'égal poids électoral nous ne sommes pas d'égal poids électoral ça aussi c'est important. d'accord mais man parce que mënoo peese kilo. ki peese gennoo liibar ngeen bëgg a pàccoo cër yi mënta ne. d'accord mais xam nga euh, assan Ba euh, man li nga wax nii lan moo tax man euh, gisewu ma ko noonu wala ànduma ci ni nga ko waxee moom mooy dañoo wax ne politique du ëmb dafay xëy rek wasin Khalifa Sall taxawu Dakar bi nekkoon 2014 ak taxawu Dakar bii nga xamante ni bëri na ñu mu àndaloon ñoo xamante ni jóge nañ ci taxawu Dakar ak PDS 2014 ak PDS bi jàpp naa ne am na wuute. ndax 2014 ña nekkoon biir PDS ak ña fa jóge ñëpp du duñ na ma xanaa doole bi PDS amoon 2014 ba léegi moom la am ak ña fa jóge ñëpp ci wàllum politique tey yéen a politique addition la xalifa Sall ñaata ñoo nekkoon ci moom jóge fa kon yéen su ngeen bëggee def loolu tamit euh, est-ce que tegu leen ko aussi ci loo xamante ni tey xel du ko mën a nangu. Abdou Khadre doole parti politique élection moo koy joxe élection moo koy wane bi ñu jógee ci nguur gi en 2012. dañu dem élection législative ñun rek ñoo am groupe parlementaire. coalition mais coalition la. dafa ndànk rek en 2012 on n'était pas en coalition c'est en 2017 la ñu nekkoon coalition. législative voilà. ma préciser la loolu. pour nga xam ko pour say auditeurs. dem ni la 2012. bi ñu dem élection législative ñun kott la woon. coalition bi ñu ko def en 2017 mu leer on est d'accord. alors donc poids électoral lu parti élection moo ko joxee nga dem présidentielle wala législative wala locale comme c'est le cas la la askan wi jox mooy déterminer sa poids électoral dégg nga donc boo amee sa poids électoral booy négocier dans le cadre d'une coalition dafa am nag ay tegtal dafa am loo xamante ay charte la dafa am ay principe dafa am ay critères yooyu ngay teg nga nii ak nii ak nii la ñu xalaat bu ñu si àndee ñu dem waaye nag man comme ni mu la koy sànq du ma peese ñaari kilo yow nga am gennool liibar nga ne wax dëgg yàlla cëri nañ ko nañ ko pàccoo nañ ko bokk nañ nañ non mënu nekk il faut aussi parce que ànd ñaar ñoo ko yàq bañ li war a nekk ak nanguloo ak ak bëgg loo xam te mënu ko am. mais da nga jàpp ne PDS poids politique bi mu amoon 2012 ba léegi moom la am. mais ci kanam rawul bët nañ dem ba ci kanam. malgré malgré malgré xeex bi nga xamante ni xeex nañ ko PDS Macky Sall ak gouvernement xeex ko 2012 ba léegi di jàpp ay cadre di leen tëj di leen sosal di leen tuumal di leen bu ndoxataal tey la waa la gën a ay def nañu tournée pour nationale bu yàggul on a fait l'ensemble des 557 collectivités territoriales fu ñu romb Ablaye Wade soppi soppi soppi dañoo rëccu loolu def da ngay gis nit ñi di SME macha allah les mouvements karimistes di fu nekk. mouvement rëccu rëccu Touba Mbacké partout loolu dafay wane ni PDS ci boppam euh, xob yu bon yi ñoo naaw waaye tey la waa gën ay tey la waa gën a dëgër te loolu nag incha allah rabbi élection yi dina ko leeral dina ko wane bu baax a baax a baax a baax donc côté boobu jot jarta yàkkamti li am solo daal mooy jàpp na ni ñun PDS malgré xeex bi parce que beneen parti bu ñu ko xeexoon ni lu toll ni li ñu xeexee kenn waxatu ko kenn waxatu ko waaye macha allah nous continuons et nous encore te tey ji la suñu xel gën a dal tey ji leen gën a am ay mbooloo. d' accord mais yéen Assane euh, bi ngeen waxee na leen léegi euh, commune yi PDS gagné woon ak euh, département yi nga xam ne waa PDS ñoo fa nekk lan lañ leen waa coalition ñooñu tontu ñoom Ousmane Sonko ñoom Khalifa Sall. waa mais ñoom ànd nañ si ak ñun sauf que nee nañu waaw mais am na ñoo xamante ni démissionné nañu nekkatuñu fa mais ñun leen ñooñu démissionné nekkatuñu fa mais kuréel yaa nga fa conseil yaa nga fa. te conseil ñoo fol maire maire bi rek moo dem bu maire rek demee te yu maire bi li taxul ñu fol ko mu ngi foofu kay kon dafay mel ni ki ba tey mais Pérez moo fa ne foofu daal xaw nañ fa am divergence woro mu ngi mel ni tey Khalifa Sall ak ak taxawu Sénégal ñi nga xamante ni moo moo ko mënatee majorité boo yorum ville de Dakar mais tey ji genn wàll gépp dem nañu ñaari ñett la dese donc voilà la logique foofu moo tax am na am na ay dispositions yoo xamante ni fokk ñu jël ko fokk également ñu gëm ko ñu xam ni politique c'est une science la politique est une science. d'accord léegi euh, bi nga bi ngeen génnee ci coalition boobu mais affaire couleur bi moom. ak euh, logo bi loolu moom amul leen son problème. non loolu fekk ñu fa sax ñun fekk na boo ñu dem suñu yoon bi d'accord loolu kay ñun fekk na dañ suñu dem ñun fekk yooyu yëpp. loolu yëpp te yooyu yëpp entre entre nous te yooyu yëpp dañ si doon waxtaanee pare wuñu ko woon. di si doon waxtaan te pare wuñ si woon ñoom ñu jékki-jékki finaliser ko def ci seen ay. vers seen ay seen. waaw mais du mu wax trahison sax jàpp naa ne daal ànd nañu à un certain moment donné daal. constaté nañu daal mëntuñu àndandoo ak ñoom. d'accord mais yéen verre yeeg yooyu moom couleur yi moom amu leen même bu leen fekkoon amu leen ci problème. non mais écoutez mais yéen tamit ci di nga gis PDS mu mun na nga couleur verte yi itam mais mënul nekk. ok léegi yéen waa PDS nag euh, ah man de Assane man yéen a ngi may waaj a jaaxal <laughs> yéen loolu ngeen lànk. lan moo tax yéen waa PDS ngeen taxawal benn coalition wàllu Sénégal ngeen jël seen logo jël seen couleur yëpp def ci te yéen ku leen ko defoon yéen du ngeen ko nangu. noo du lool loolu mooy cohérence maa ngi gërëm fii Mamadou Lamine Diallo Tekki di gërëm le président Pape Diop di gërëm Mamadou Diop de Croix di gërëm waa jot na ñoom Bruno Derneville ak docteur ñaan xam lu tax ils sont cohérents ci seen démarche di gërëm le premier ministre Abdoul Mbaye ak partem parce que simplement jàpp nangu nañu leadership bu parti démocratique sénégalais nangu nañu leadership bu Abdoulaye Wade te itam Abdoulaye Wade ak PDS mboq mi lañ ko xam épidémie bi lañ ko xamee ak couleur bleue jàpp na ni sénégalais yépp amul kenn koo xamante ni xamoon luy couleur PDS xamul luy couleur Abdoulaye Wade donc li gën a yombal mbir mi au lieu que ñu koy jaxaseeg di mélange def xonq lii vert fële blanc fële nangam nangam fële ñu def couleur parti démocratique nga xam ne ku dugg ci isoloir bi da nga jël sa bulletin dugal sa biir. kii dañ dugal ñooñu dañoo daw làqatu ci. ginnaaw Ablaye Wade non daw ñu làqatu noo daw ñu làqatu. làqatu ci couleur Ablaye Wade non non non làqatuwuñu. dañu ànd ndax sympathisant Ablaye Wade yi dañoo daw làqatu ci euh, ci ginnaaw couleur PDS ak logo PDS. non Abdou Khadre Abdou Khadre d'accorduma ak yow ah. expression boobu elle est impropre. Mm. ñu dañu am cohérence am ngëm-ngëm nekk ay cadre ay intellectuel nekk des responsables politiques. waaw d'accord mais man ba tey ba tey waaw bu la neexee. xam na tax nga tuddee ko loolu. xam nga tax nga moom mooy tey par exemple tey boo xoolee logo boobu ak euh, couleur boobu presque ñu bokk foofu ñëpp presque ñu si baree baree bari dañoo judd ñëw fekk fi logo boobu ak euh, ak ak ak couleur boobu xam ne tey Sénégal ñu baree baree bari xàmmee nañ li nga xam ne mooy couleur mooy couleur PDS da ngeen a xam ne bu ngeen fa bëggee taxawal beneen couleur pour ngeen bëgg def promotion bi ba Sénégal yi di ko xàmmee mën naa jafe moo tax ñu ne nañ ko yombal. waaw mais loolu sa moom. sama xalaat la xalaat moom dama la koy nangul waaye dama lay xamal ni la. ñooñu kilifa yooyu c'est des responsables ils sont très cohérents dans la démarche dans la et dans la stratégie parce que li lay yombale liggéey bi nga gën a gaaw am sa victoire kay boo ko amee looy wut ay difficulté ak ay jafe-jafe amu amu njariñ xam nga couleur du tax nga gañe waaye xameekaay bi nga xamante ni moom la askan yëpp a xamee nag ba ñëpp xam ne ñii ñu ànd kii nangu nañu Abdoulaye muy seen muy seen muy seen njiit mais loolu koy amul benn problème loolu koy wax dëgg fa yàlla euh, dañ si dañ si tàccu en tout cas ñun on les félicite d'avoir accepté ce choix ngeen si Wade moom. mais Wade kuy def seen add add Wade kuy def politique fii ci Sénégal boo ko ñàmbasul it moom ci bopp mooy si ñàmbas boppam yàlla moo ko defal loolu. <laughs> yàlla moo ko defal loolu. d'accord léegi léegi wall wallu Sénégal euh, nan ngeen ko taxawale waaw wàllu Sénégal euh, dañ ko waxtaanee rek dañ ko waxtaanee rek nag comme ni ñu daan waxtaanee yeneen yeneen coalition yi. maanaam ay kilifa ñoon ñoo toog di waxtaan ak ñoom waxtaan ak Mamour de courant waxtaan ak le président Pape Diop waxtaan ak le premier ministre mbay waxtaan ak Mamadou Lamine Diallo Tekki euh, waxtaan ak euh, Bruno D'Erneville ak docteur Niane ak yeneen entité euh, yoo xamante ni ay citoyens lañu ak yenn parti politique yoo xamante ni ñu ngi ci biir te ñu bëri lool te bu mu leen doon lim fi tey émission bi xaju si donc dama juqi rek ñi nga xamante ni ñooy tête de pont yi. waxtaan ak ñoom waxtaan wu sell waxtaan wu yiw waxtaanu mbokk waxtaanu diine waxtaanu euh, nit ak nawleem ak naatangoom ñu ñu daldi conclure à un accord politique ñu def suñu déclaration de principe ñu def le nom grande coalition wàllu Sénégal ñu d'accord également ci couleur yi comme noonu nga ko gisee ak noonu nga ko gisee ci kii ak yooyu ñu ànd si ñëpp ba. fan yële passé ñun daal def suñu lancement euh, lancement bu ama am solo yaakaar naa ni yéen yëpp yéen nga fa woon am pompe yéen yéen wax ni en tout cas c'était rempli de monde askan yu Sénégal ñëw nañu buy si ñu loolu nag la ñu bëgg maintenir mais nag euh, Assane yàgg nga si politique yaa jiite mobilisation ak propagande mais xam nga la fa dajee moom du dara ci wàllum fal nit. Eh, dangaa juum rek dangaa juum rek. Sénégal yëpp kenn mën leen xajale foofu stade ba sax boo indi woon Sénégal yëpp duñ fa xaj. moo tax ma ne la seen seen lancement seen lancement nga ne ma nit ñi ñëw nañ. lancement ba lancement ba yaa ngi foon. seen seen média baa ngi foon ñoom suñu média ñoo nga fa mais ah. dama ne la Assane. yow yaa yor propagande ak mobilisation. lu wér la xam nga ne ab lancement ña fay ñëw duñu duñu duñu dara ci poids électoral. waaye mais ah kay ah kay c'est important ndax ñi jóge ci biir réew mi ñi jóge Mbacké ñi jóge Touba ñi jóge Ziguinchor ñi jóge Kaolack ñu joxe ba Bakel ñi jóge Ndar ñi jóge Matam ñu jóge Ranérou seen lancement ngeen di natt seen lance déedéet c'est important c'est am ak am solo sax dafay wane les grosses pointures qui ont adopté la coalition et qui veulent travailler dans la coalition c'est important. d'accord waaw mais loolu am na solo trop. yaa ngi wax grosse pointure mais man euh, gisuma ko ci coalition boobu à part PDS. bu la neexee non mënoo wax ni mënoo wax ni Bab Diop du grosse pointure mënoo wax ni Mamadou Diop du Kourat du grosse pointure mënoo wax ni Abdoul Mbaye du grosse pointure mënoo wax ni Mamadou Lamine Diallo du grosse pointure. am nañu am nañu tur. am nañu tur am nañu tur mais amuñu base politique. non si am nañ base politique parce que ñi ma la wax ñëpp ñi wax ñëpp boo dem ci gox-goxaan yi seen ay ndaw nekk dañ ay conseils municipaux wala ay conseil départementaux donc ancrage institutionnel am nañ ko. am nañ ancrage am nañ defal nank rek am nañ ancrage sociologique am nañ ancrage politique voilà comment on détermine. la force d'un leader politique et d'un parti politique. d'accord man xam nga euh, d'accord naa tey par exemple tey leader yooyu ngay wax ne am na ñoo xamante ni même bu ñu amul base politique mën nañoo nekk ci télé yi di wax ci débat yeeg euh, seen ñoom mais tey seen coalition boobu bu passé pedes ak quelque localité nga fekk fa tuuti ay bokk gis-gis mais euh, Mamadou de Decroix xamatuñ fan mooy base politique am est-ce que partem bi nekk na ci localité yi. Abdoul mbay kenn xamul fan mooy base politique am euh, ñi nekk ci coalition boobu euh, même jot na moomu ngay wax ab Ablaye ñaan fan mooy base politique am ñu baree bari xamuñu ko Touba ñu baree xamuñu ko Mbacké kon wàllu Sénégal grosse pointure yi ngay wax ñan la. mais limal naa la les grosses pointures tout à l'heure. ci ay tour waaw mais dafa nànk rek ñooñu ñëpp. ñoo ñëpp ci ñëpp foo dem ci gox-goxaan yi fekk fa seen ay ndaw fekk fa seen seen ay militants ñoo ñëpp foo dem tey ci Sénégal wax ak bitim réew nga fekk seen ay ndaw ak seen ay représentants. c'est c'est important donc bu leen xeebal la leen yàlla may ci dayoo ak ak. yow bu la neexee bu la neexee yow nga waxee noonu. non xeebu ma ko mais mais ñun xam man ñemewumaa wax ne euh, wax ne am na fu PDS. amul defal nànk rek Abdou Khadre defal nànk dañuy waxtaan. non auditeurs yi dañuy déglu. d'accord c'est important ñu bañ jaxas seen xel yi dama ne la. ñun ñi ñu àndal ay boroomi dayoo lañu ay kilifa lañu am na ñu nañu maqaama ci politique wax nañ am nañ ancrage politique am nañ ancrage sociologie am nañ ancrage institutionnel. loolu c'est extrêmement important donc ñooñu bala ngay xam seen doole dëgg-dëgg bayil ba ñu déroulé incha allah bi campagne électorale bi yàggatul. di nga gis. te di nga gis loo xamante ni lu la bett la yow. d'accord mais mais ñoo ngi wax euh, implosion euh, wàllu Sénégal ne Pape Diop euh, am na presse bi sax ñu bind ne Pape Diop benn tànkam ma ngi ci bitti. waaw mais xam nga ñooñu di ko bind dañu jaay seen journal rek dañu bëgg nit ñi jënd seen journal. mais mais mais mais la vérité loolu amul. non en réalité li ci am mooy ñooy waxtaan ci biir waxtaan wi. kenn ku nekk am nga sañ-sañ am sa bëgg-bëgg boo amee sa bëgg-bëgg am nga sañ-sañu wane ko ak wax ko ni man dey sama parti bëgg na bërëb sangam bëgg na bërëb sangam bëgg na bërëb sangam ñu waxtaan ci suñu biir ba ñuy ba ñu d'accord ci nii bon lii nga wax nii lii ak lii war na mën a nekk waaye lii ak lii fii la jëm wala lii ak lii fee la jëm waxtaan la rek loolu nag mënta ñàkk coalition yépp looloo ngi ci gisoo coalition benn bokk yaakaar ci ñu fare ci Macky Sall APR ñu am ñetti candidat ba ñetti candidat ci benn gox gisoo ko déggoo ko yow. Mhm. lu tax doo leen ko wax. non ñoo ngi koy askan wi gisoo ñu babbeeku foofu naan ah, ah. dematuñu. lu tax doo leen ko wax. mais voilà donc c'est pour dire simplement. mais comme yow mi ñu toog wàllu Sénégal. moo ci boppam. Mhm. incha allahu rabi loolu ngeen xalaat nii dina babbeeku du am. ci kattan suñu parce ah, que jàppoon mu dana génn. xalaatuma ko sax xalaatuma ko xalaatu ko moom ci boppam. parce que fi mu nekk nii foofoo gën ci moom foofa gën ci ñun foofa gën Sénégal ay nit nag bu ñu seexee dañu waxtaan ba déggoo ñoo ngi waxtaan waxtaan waxtaanu xel waxtaanu waxtaanu dal ak waxtaanu nawle jàpp naa ni incha allah rabbi dinañu finaliser suñu ay waxtaan bu ñu déggoo ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu samp ci gox-goxaan yépp ba war a mën a déposer suñu ay liste. d'accord mais yéen waa PDS est-ce que tamit euh, ni ngeen jëlee seen couleur ak seen logo. est-ce que bëggulee na ndax yow sànq tamit dégg naa la sa biir wax nga ne euh, PDS dayo bi mu am ci wàllum politique mais est-ce que du ngeen imposer ñooñu séddale bukki bëgg ngar dajjoo commune yëpp Assane Ba. non séddaloo bukki mun fi am bukki mun fi am parce que ay nawlee nañu. est-ce que nawloo ngeen leen. bu ñu nawloo wul woon ak ñoom du ñu ànd ak ñoom. ñoom ñoom nañ leen a nawloo yéen ngeen bañ leen a mën a. dama dama ne la dama ne la bu ñu nawloo wul duñ bu ñu leen nawloo wuloon du ñu ànd ak ñoom nit boo ko nawloolee doo nekkee moom c'est c'est évidence ñoom tam nawloon nañ ñu moo tax ñu ànd ak ñun ci njëkk ak teraanga ak sutura ci àndub nawle la ñu ànd di waxtaan bu baax a baax a baax a baax séddale bu ci mën nekk foofu wax naa la sànq nii la. Euh, mais ñooñu tamit est-ce que du ñàkk pexe ñoo tax ñëw. ñàkk pexe amu ci parce que kenn ku nekk am nga sa responsabilité ànd ak ñun wala nga bañ ànd ak ñun. d'accord léegi c'est une responsabilité individuelle d'abord. par parti. Mhm. et ils ont mesuré leur responsabilité ba xam ne ñun ñii la ñu war a mën a àndal ñun ñii la ñu ñoo ñoo mën a. ñoo nawlante ba ànd nañu. léegi séddale bukki bi séddale bukki mënu fi am. duñ leen ko imposer séddale bukki donc kenn du ko imposer kenn dañu waxtaan ci taw yu ma xel. parce que naa la wax ñaari yëf euh, parti politique bu nekk ci coalition dafa bëgg yokkute am na ñoo xamante ni ñàkkul amuñu ay conseils municipaux wala ay conseils départementaux wala ay conseils de ville bu ñu àndee coalition bi ba seen parti am conseils départementaux. mu am conseil de ville wala mu am conseil ci communes yi mais ñoo yokk nañu parti politique boo xamante ni mosul am maire wala mosul am adjoint au maire bu fekkente ànd na ak coalition bi ba parti boobu am loolu mais yokku na parti boobu xamante ni ñaari téeméeri maire la amoon ñu ak coalition bi ba mu am tey trois cent wala lu lu xaw a ëpp li ma amoon mais yokku na noonu la ñuy nattee évolution nekkinu coalition coalition bu ñu àndee pour pour yaatal doole ji la boole doole la fexe ba kenn ku ne nga gis sa bopp kenn ku ne nga am avancement loolu mooy coalition. loolu mooy stratégie bi loolu mooy la ànd bi te ci loolu lay nekk donc dinañu fexe ba kenn ku ne nga avancé ci biir coalition bi avancement bi mooy li mu wax léegi. d'accord loolu c'est important je crois pour nit ñi xam ko. d'accord jërëjëf euh, Assane Ba euh, ñu fàttali ne yow membre nga ci comité directeur bu PDS yaa yor lépp lu jëm ci wàllum mobilisation ak euh, wàllum propagande mais seen coalition wàllu Sénégal. Euh, yow jàpp nga ne euh, du tas jàpp nga tamit ne coalition la boo xamante ni tey ay grosse pointure ñoo nga fa euh, mais Assane yéen grande ville yi fan ngeen xalaat a gagné Assane grande ville yi ci élection locale yi ndax xalaat ngeen gañe gagné ville de Dakar bu ngeen ko xalaatee nan ngeen def ba gagné ko ak fan nga ko teg nan ngeen xalaatee gagné fu mel ni ville de Saint-Louis ville de Thiès ville de Ziguinchor ville de Kaolack Assane Euh, merci euh, question ba am solo la mais dama lay xamal ni la euh, sunu coalition def bokk ak benn coalition sunu coalition dafa incarner un ancien président de la mu am des anciens premiers ministres ñu am des anciens présidents d'institutions comme l'Assemblée nationale ak Sénat ñu am des anciens présidents de groupes parlementaires ñu am des anciens maires des anciens députés des anciens ci des anciens là macha allah macha allah nous sommes la seule coalition bu am cadre bi demee noonu ñu am expérience avérée loolu moo tax ñu am yaqin ni incha allahu rabbi question bii nga posé du benn problème si ñun du doon benn problème si ñun xam nga déjà. mais dafa gisul ku leen mën a gañal Dakar. non non non defal naa non defal rek xam nga suñu stratégie na du ci rajo lañ koy wax suñu stratégie nga baal ma rek mais du ci wax. ñun li ñuy doxalee suñu stratégie ñoo ko togg laal ko doxal ko déroulé ko le moment venu au soir du deux mille vingt 2022 coow dina jub fu ñu ko foogeewul coow dina jub fu ñu ko foogeewul loolu rek laa la mën wax ci wàllu woowu. Mm-hmm. mais yow euh, investisseurs yi daal jàpp nga ne du ngeen sam problème. am naa yaakaar ni ci kattan suñu borom incha allah rabi nii nga xamante ni noonu la ñu continuer ji liggéeyee liggéey bi tegu ci yoon liggéey aw ci yoon ñuy waxtaan ci teeyum xel ak dal ak àndub nawle dinañu liggéey ba liggéey bi antu incha allah te benn tolof tol du ci am. déposé gu leen seen caution. waaw loolu loolu paasegul jusqu'à la veille du de la du dépôt des listes mën nga mën loi bi mën na wax na li mën nga déposer caution loolu ce n'est c'est pas encore tard. mais dama dégg ñu ne am na ay ay parti politique yu nekk ci seen biir ñoo xam ne. Euh, pour mesure de de de de de kii déposé nañ euh, seen caution. pour en cas bu ngeen demee ba déggoo amu ci. ñooñu si ci waa waa benn bokk yaakaar yi waaye pas ci wàllu Sénégal. waa wàllu Sénégal amu ko ci. wàllu Sénégal loolu amu ko fi te xalaataguñu ko sax kooku loolu mu ngi am ca waa benn bokk yaakaar foofu la amee. mais pas si ñun encore en tout cas egseegul si ñun. ah mais yow euh, Assane Ba yéen waa PDS ak jafe-jafe yi ngeen amoon ak Abdoul Mbaye nan ngeen mën a def ba àndaat. mais ñun amuñu benn jafe-jafe Abdoul Mbaye am ban jafe-jafe lañu am Abdoul Mbaye était le premier ministre de de Macky Sall nous étions dans un groupe parlementaire les politiques yi nga xamante ni moom la doon exécuter en tant que premier ministre te te constitution bi wax ko. ñu ni euh, le premier ministre exécute la politique définie par le chef de l'État nous n'étions pas d'accord avec lui sur ces politiques dégg nga euh, di di wax di di xeex pour que politique yooyu def motion de censure loolu rek la et c'était normal temps boobu il était avec Macky Sall les politiques de Macky Sall benn baa ko ci ba fi may wax yow ba kon kay nous étions tey euh, divergence yooyu ñu amoon tey moom gis na ni ñoo nekkoon ci dëgg parce que dëgg rek kay mujj moo tax tey jii ñu mën a ànd ànd bu ànd bu rafet ànd bu dal te d'accord nañ si ak ñun que ni wax dëgg fa yàlla laajal tey Abdoul Mbaye wala nga invité ko fii den la expliquer que toutes les politique définie par le président Macky Sall c'est des politiques néfastes pour le développement de notre pays. léegi euh, Assane Ba coalition benn Bokk Yaakaar boobu ngay wax euh, naam am na ay réeroo ñoom tim ci seen biir euh, waaye est-ce que tamit du coalition boo xamante ni tey taxawaay bi moomoon ba léegi est-ce que est-ce que amu ko. waa xam nga foofu coalition d'intérêt moo fa nekk amul ngëm-ngëm parce que simplement tàngal lañ leen di jox. ñu saxal leen tàngal. loolu moo leen loolu moo ànd ànduñu ak Macky sàll bu ma Macky Sall def bu mu yaakaar ni ñoom mu ñoom ñoom ànd yàlla seet na ne ànduñu ak moom faalewuñu ko sax seen intérêt lañ rek la ñu moom daal tey yor na lem bi ñoom mel nañ ay weñ ñuy wër ci ci ci gannaawam loolu loolu la fa te moom itam mu mu ngi leen dompatal euh, ci lem bi di leen dox li lii rek la mais du jeex commencé na déjà tu crois que sa Tall Sall dina nangu Euh, Racine si euh, jiite liste liste Podor est-ce que yaakaar nga ni tey. Euh, Ablaye Wilane dina nangu tey Ablaye Sow jiite liste liste liste benn bokk yaakaar ak Kaffrine Aïda Mbodj Aïda Mbodj dina nangu Aïda Mbodj sax Yewwi Yewwi la nekk Aïda Sow Diawara dina nangu Guédiawaye géemu nekk Lat Diop jiite ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Dakar gi aussi yaa ngi dégg Ablaye Diouf Sarr Amadou Ba ji coow li mais Ndar gee la même chose Mary Teuw Niane Mary Teuw Niane ak Mansour Faye donc c'est pour dire ñooñu ñu am implosion ñooñu am problème. mais loolu ñoom euh, li ñuy est-ce que xalaatoo ne dañoo jàpp ne mooy euh, manque kuy jeexal ci wàllum politique moo tax fipp yu mel noonu. ah li ma leer daal mooy xam naa ni euh, fi mu nekk nii ah mbir ma xaw na xaw na xaw na. xaw na xaw na xaw na. weng xaw na weng weng na bu baax a baax a baax. waaw moom daal. xam nañ fi mu nekk nii nguur guy jeex nekkoon ngeen. ah waaw moom mii day signe signaux yi may gis. nguur guy ak signaux yi Sénégalais di gis. mel leen daal bu yeboo mu préparé bagage parce que daal euh, li ma gis nii bu fekkente ni daal amul lenn lenn lenn loo xamante ni euh, gisuma lu ko war a tax euh, ba ba du am defet ci élection locale yu ñu jëm. mais mais moom njortoo ne ay troisième mandat moom njortoo ko xanaa. non yéen itam bu leen ko njortul Macky Sall. Macky Sall non man dem na la est ce que njortul. non non non non Macky Sall mënul njortu yéen itam troisième troisième mandat parce que moom ci boppam nit danga nga koy jàpp ci li mu wax moom nee na ñaari mandat la doon wut am na ko jeexal na ci waxoon na ko non. Mhm. waa yéen ñëpp ci seen rajo yi ak ci seen télévision laa ko déglu suivre ko ba pare article euh, de la constitution article 20 de la constitution dafa leer nañ la durée du mandat est de cinq ans nul ne peut exercer plus de deux cons wax ñu deux mandats de cinq ans wax deux mandats de sept ans nul ne peut exercer plus deux mandats consécutifs donc c'est pas la de faire du juridisme ñaari mandat yu teglante def na un mandat de sept ans bii mooy mandat de cinq ans ñoo teglante ñoom ñaar d'accord kon bu jeexlee gasi gasi xaala gasi day dem yoon. d'accord mais euh, wax nga ci coalition benn bokk yaakaar mais coalition yeewu askan wi ñu gis fa Ousmane Sonko mi demoon élection présidentielle am 15 cent fekk fa Khalifa Sall taxawaay bi mu am ci ci Ndakaaru ak biir parti socialiste euh, Serigne Mansour si Djamil ma nga fa pur tamit demoon ci élection présidentielle euh, est-ce que tamit ñooñu ak ay ay dëmboo jóg ñooñu tamit du coalition boo xam ne jàpp nga ne coalition la boo xam ne mën nañoo gagner grande ville yi. ñooñu suñu ay nawleel lañu. suñu ay wëlër lañu ñoo far ci opposition bi amuñu benn problème ak ñoom suñu ay xarit lañu suñu ay wëlër lañu képp koo xamante ni daal yaa ngi néewal force de frappe bu pouvoir bi di wàññi doole nguur gi mën na wax ni ce sont nos alliés authentiques ñun wujjantiwuñu ak ñoom mais à l'arrivée de la course kenn ku nekk di nga xam sa mor lu mu ànd ak lu mu loolu rek la am solo mais seen xaajale ko bi est-ce que ñàkk. waa mais xam nga mënta ñàkk xam nga lu tax ay nit dañu mën a ànd ñu ànd mënuñu ànd ku nekk wuti demal bayal sa bopp lii rek la du leneen àndoon nag moo ñu gënaloon àndoon moo ñu gënaloon. d'accord àndoon moo ñu gënaloon doxoon nañu ay tànk yooyu ba xaw a sore. Mhm. waaye constaté nañu ni. Mhm. wax dëgg yàlla euh, tam à l'impossible nul n'est tenu daal. d'accord léegi euh, Assane Ba PDS lan mooy problème ak euh, maire Bara Gaye yëmbal. personnellement yëguma problème bi ñu am ak maire Bara Gaye yëguma ko personnellement. waa réero du ñàkk mais man yëgum problème bu mu am. mais mooy problème bi. waaw mais réero bu amee moom ci boppam xëy na boo ko oon fii invité ko nga posé question bi xëy na moom dina la mën a leeral parce que man xam naa ni ci ba fii may wax yow jàpp naa ni mu ngi ci biir parti bi génnul parti bi parti bi dàq ko te moom it démissionné wul. mais du ànd ak yéen ci kon man loolu wóoruguma egguñu foofu. egg parce que ñuy def suñu ay investiture yëmbal sud gee mu nekk ay militant nga fa ay responsable nga fa. xamaguma naka la ñuy toxalee seen ay investiture ndax section bu nekk yéen def say investiture boo amee ay ñaar ñetti ñeenti candidat euh, kuréel bi parti bi ak coalition bi dinañu dinañu trouver une entente fexe daal ba ñu ba ñu ba ñu dëppale leen ba ñu seet ku nga xamante ne mooy nekk tête de liste ñeneen topp ci eggaguñu foofu mais li ma la mën wax daal pour le moment euh, loolu laa la mën a wax ci kaam. léegi Abdou Aziz Diop génn na ci euh, groupe parlementaire. liberté démocrate lan moo ci sa xalaat ak moom tamit ndax ma ngi PDS ba tey. waaw Abdou Aziz Diop euh, suma jeune frère la c'est vrai il était élu sur la liste euh, de notre groupe parlementaire nekkoon ci membre parti démocratique sénégalais moo ko fal ci listam la folo en 2017 lu am la mais xam nga constitution bi dafa wax ni député bu ñu bu folu ci listu parti bu démissionné day day day perdre moo tax ñemewul wax ni démissionné na ci parti démocratique sénégalais waaye yoon may na ko mu nekk député indépendant mais ñëpp xam na ni bi nga xamante ni Oumar Sarr mi nekkoon coordonnateur PDS bi mu jógee PDS dem créer som parti te moom moom mu nekkoon bras droit wu Oumar Sarr dëkk dëkk Richard Toll nekkoon fa responsable PDS bu Richard Toll dégg nga Oumar Sarr lay jàppale Oumar Sarr la doon jàppale te ba tey ji Oumar Sarr lay jàppale moom la àndal mais mënul démissionné na PDS parce que bu ko fësalee wala mu bind ko day day perdre son mandat de député loolu moo tax. mais est-ce que élégance mayu ko woon kon mu démissionné benn yoon. waaw mais kooku nag moom xam naa ni gis-gisam moom boo ko gisoon xëy na dina ko laaj. mais bu ko defoon rek perte mandat bi xam naa ni day bari perte mandat bi te comme li ci des bareetul alors loolu tax rek mu jafandu noonu rek. Euh, daal ñu bàyyi ko noonu. waaw léegi euh, Assane Ba euh, Karim wàdd ñu bari dañuy wax ne. ñiy jóge biir PDS wala ñi fay am ay jafe ñu si mel ay baarage ak ñeneen ñeneen Euh, Karim Wade la lan nga ci tontu. non loolu ay caaxaan la Karim Wade est un excellent cadre du parti euh, euh, mu ngi liggéey liggéey bu am am solo mu ngi xëy chaque jour ko Dieu fait mu ngi waxtaan ak ñun mu ngi ñoo ngi jokkoo ñoo ngi waxtaan ci li jëmee parti bi kanam chaque jour bés bu yàlla sax te li muy def ci parti bi amul benn cadre ci parti bi bu koy def bu ko def. kooku mën naa ko seede fii sa micro. ci fànn yëpp ci organisation ci méthode de travail ci orientation ci encadrement ak sax ci ci ci ci ci doole ak ñaqam ak sax ci ñaqam. mooy financer activité parti wax ma la loolu de ci wax ma la moo koy financer ci ñaqam daf ko ci def. waaw c'est important parce que bëgguma nga indi loo xamante ni wax wala wax ma. non waxuma yaa ko wax dama la laaj. waaw mais moo tax ma leeral loolu. Mm. ci ñaqam comme kenn ci ñaqam ñu ñu ngi ci def lu ñu man mais néew ma la moom mooy financé parti bi kan moo koy finance activité yi. non attends parti bi ñun dañu am groupe parlementaire député dañu cotisé cadre yi seen jéem bopp kenn ku nekk da nga am sa as lu fi indi président Abdoulaye Wade bàyyiwuñu benn yoon kooku noonu lay parti di dundee. d'accord et ñooy jaay suñu ay carte li nga xamante ne am nañ carte bi dañ koy dañ koy liggéey parti bi dañ koy fonctionner parti bi dañu am appareil politique. dañu am administration du parti dañu am ay charge charge de téléphone charge d'eau ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen chargé d'essence tournée yi extera cetera tout ça c'est c'est une administration. mais est-ce que mu leen problème mu xaalis. ñun bu ñu amoon problème mu xaalis fekk tëj nañ suñu permanence parti démocratique sénégalais mënul am problème mu xaalis. xam nga lu tax permanence kese. xam nga lu tax xam nga lu tax hmm. euh, dañu am dañu am xalaat ñu uuteeg xalaat yu bëree bëri bëri bëri Abdoulaye bi mu sancee parti bi 1974 ba léegi dafa am ay xalaat ak ay idée noo xam noonu la ñuy doxalee parti bi idée yooyu ak xalaat yooyu ba tey ñoo nekk fii. loolu ñu sant ma ma jaaxal ci Karim boobu nga wax donc ñiy wax Karim dañu wax lu leen neex wala dañu bëgg dem ca marron beige parce que gis na ni ñu bëri bu ñu attaqué Karim foofu la ñu foofu la mujjee loolu loolu loolu ay caaxaan la Karim defu leen tey dara waxu leen dara wax dëgg fa yàlla ku ci wax Karim tudd ko ci da nga koy tooñ. mais est-ce que Karim lu tax démocrate bañ a démocrate je je vais même dire je vais même aller plus loin daf mel sax moom ëpp démo moo gën nekk démocrate sax wuy pour te dire il est très démocrate il est très attentif loo ko wax daf lay déglu ak teeyu xel tontu la ci li ma xam mu ne ah loolu de lii la wala yow boo ko waxee nga convaincre mu ne ah vraiment tu m'as convaincu. est-ce que d'accord na ci débat d'idées mais bien sûr que oui ñuy dañuy débat d'idées toujours dañu waxtaan moom muy wax xalaatam ñu wax ko suñu xalaat finalement ñu déggoo ci lii. mais ndax dina jëfandikoo seen i xalaat. mais bañaa jëfandikoo itam mais doomu aadama la nit la c'est a à fait normal. ok léegi Assane euh, le retour le de Karim kañ la. le retour de Karim Wade dafa aju si ñaari ponk benn ci moom la d'abord individuellement moom mooy xool ban jamono ban moment moo moo baax pour mu ñibbisi ñaareel ponk bi parti démocratique sénégalais mooy analyser moom it la situation politique nationale ba xam ban jamono la war a ñëw boo ko defee ñu boole ñaari ñu couplé ñi deux éléments yooyu mu mu daldi ñu si réew mi parce que nag Karim fii la dëkk fii la dëkk Sénégal yële la dëkk Ndakaaru yële la dëkk point e, yële dëkk. dëkkul Doha dëkkul Paris dëkkul feneen ak feneen Sénégal gi la dëkk kon nag ak lu mën a xew Karim Wade dina ñibbi si kër baayam dina ñibbi si Sénégal. mais amul benn gàllankoor ci wàllum yoon bu teree mu ñëw maanaam bu ñëwee mën nañ koo jàpp duwalaat ko ci kaso beeg yooyu ndax lu mel noonu euh, taxul mu toog. fa mu toog ba tey nga ma fàttali la benn affaire Karim bi nga koy convoqué nekkuloon réew mi nekkuloon ci biir Sénégal il était en il était mais buñ ko xamalee ni justice daf la soxla. dafa coupé lépp loo xamante ni daf ko doon liggéey bitim réew mu ne comme la justice moom bi a besoin de moi damay dagg bii daldi ñëw wuyu si ma justice kon moom amul lu muy ragal pour ñibbisi fii bu doon keneen bu ko neexoon mu toog foofu mais dafa dagg bii dal di ñëw ma fàttali la loolu ma fàttali également sa auditeurs yi ñu déglu c'est important loolu donc c'est pour dire loolu amul benn gàllankoor boo xamante ni tey jii war na mën a tere bu bu bu ñibbisi. léegi yéen yéen a ngi sàkku euh, ñu àtteewaat ko. wala amnistie bi ñuy wax. non ñun mos ñu tudd amnistie amnistie Macky Sall moo ko mos a tudd moo ko mos a tudd France in France rajo France internationale ak France 24 télévision moom moo waxoon loolu moo waxoon il il est il il peut avoir une possibilité d' amnistie les les les, les cassettes sont là kooku moo ko wax moom la engagé mais ñun mosuñu sakku amnistie te duñ ko sakku parce que amnistie xam mooy lan. boo ko nangu dafay mel ni ki yow kat lañ la tuumaaloon ak la taxul ñu tëj la euh, lu am la euh, ndax am ne amnistie mooy dañ lay baal dañ lay jëgal ñu ne nanguñu ko jëgal ñu baal ñun li ñu wax mooy li nga xamante ni moom la comité des droits de l'homme des nations unies wax que dañu war a reprendre procès Karim Wade ba pare ñu indemniser ko ñun ci loolu la ñu tunku d'accord ci loolu la ñu tunku te loolu la Karim Wade wax loolu la parti démocratique sénégalais wax jërëjëf euh, Assane Ba ñoo ngi lay sant la gërëm maa ngi leen di sant bu baax waxtaan wi am na solo xam naa ne xaw ngeen ma sonal waaye nag c'est comme ça parce que waxtaan moom sotti génne génne idée la permettre nga ma tey ma leeral ay ponk yu bëri yaakaar naa ne auditeurs yi itam dinañ kontaan ci émission bi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm. jërëjëf euh, Assane Ba mu nekk euh, membre ci comité directeur bu PDS moom lañ denk tamit lépp lu jëm ci wàllu mobilisation ak wàllum propagande ci euh, parti boobu mbokk yi li mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.